fu ñu ne dëkku sëñ Touba la xam nga ne loolu wuute na ak dëkk dëkk boo mën a jël beneen wuute bi mooy mbooloo mi daje ci dëkk bi sooy xool ci wàllu euh, démographie mbooloo moomu doo gis fenn fu dul lu demee ni Dakar te Touba du capitale régionale mais mbooloo mi ñu fi am moo ëpp soo jëlee région de Tamba yëpp. nga jël région de Fatick yëpp nga jël région de Saint-Louis parce que ñun suñu liggéey dañu am habitude di liggéey ci ay données démographiques mooy lépp lu ñuy natt dañ koy natt ci limu nit ñi nga xam ne ñoom ñoo tax ñuy def li ñuy def ba tax Touba nekk dëkk boo xam ne population moo ëpp population wu région yu bëri ci kaw loolu lu Touba ci kanam feeñe ci jamono ñëw dugal loxoom ci liggéey boobu ba pare wëlbatiku ànd ci ak ñun ndax poste de santé yi nga xam ne moom la njëkk mu sotti ñoom niñ ci doxee ak ni ñu doxee ci biir dañ ko rafetlu ndax lii wolof di wax loo jàngul doo ko tari ñoom ca njëlbeen nga dañu ñëw ñu toog ak ñun ñun nga xam technicien wu santé la lépp lu jëm ci wàllu santé loolu la suñu xam-xam jëm ñu toog ak ñun laaj ñu dëkk bi yan bërëb ngeen yaakaar ne suñu fa defee ay poste de santé dina xettali askan wi nekk Touba loolu dëppoo woon nag ñun ñu defoon taxaw seetlu ba xam bërëb yooyu fu ñu féete ci dëkk bi ndax léegi ak technologie yi mën nga def li ñuy wax cartographie géolocaliser structure yi fi nekk bu ci nekk nga xam fan la nekk xam distance yi nga xam ne nit moom lay def pour dem ci bërëb yooyu xam itam bërëb yooyu ndax am na lu deme ne ay tali walla ay pis wala ay mbedd yu fay yóbbu nit ñi ñu mën fa àgg ci diir bu gàtt xam tamit bërëb yooyu jumtukaay ya fa nekk ak ña fa nekk war a taxawu askan wi lu fa manqué yu deme noonu kon muy li ñuy wax carte sanitaire nga xam loolu ministère daf ñu santoon ñu defar ko ba pare Touba ci kanam bi ñu ñëwee laaj ñu ñu sukkandiku ci ay données yoo xam ne c'est des données objectives données yoo xam ne dafa sukkandiku ci xam-xam ak gëstu ñu leeralal leen ñu jël ay poste de santé tabax ko ci ay béréb yoo xam ne tey ji xettali bu baax askan woowu kon santé dafa nekk lu am solo ñuy ñaax nit ñi ñu jàpp ci liggéey bi liggéeyu Touba ci kanam bii Touba ci kanam ñëpp la képp ku dëkk Touba rek yéene nga Touba jëm ci kanam kon ñu ngi ñaan ndaw yi nga xam ne dañu toll ci seen doole ñu wàññi carte crédit yi ñuy dugal di ci WhatsApp te def ko ci Touba ci kanam góor góorlu ndax liikat kat ndimbal lépp suñuy njaboot ak suñuy askan kon ñu ngi ñaan nit ñi gën a farlu ci dugal seeni koom ak seeni am-am ci Touba ci kanam ngir lii ñu def fii ñu mën ko def feneen ci dëkk bi. mboolem murid yi fu ñu mën a nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew ñoom ñoo dajaloo doon Touba ca kanam ñoom ñoo ñu dajaloo doon Touba ca kanam nag di yëkkati seeni alal di ko dajale ngir jëmmi Serigne Touba te di ci liggéeyal Serigne Touba ci Touba dafay am. loo xam ne dañu koy bàyyiloo xel fii mu ne ñoo ngi toll ci juróom-benneelu poste de santé bu ñuy waaj a tabax mooy juróom-benneel bi mooy bii ñu teg docteur Dieng mi jiite district sanitaire bu Touba ñëw na ci léegi bu njëkk bi mooy bu Lansar bi ñu koy tàmbali ni ko docteur waxee fi ñu war a jaar fépp jaar nañ fi di fàttali ñëpp ne plan de base bi nga xam ne moom la ñu liggéeyee. ba tax bi fi ministre bi ñëwee ministre de la santé bi fi ñëwee visité ko wax na modèle bi dañ ko war a jël modèle boobu ci ñoom la bàyyi ko modèle de base bi ci ministère de la santé la bàyyi ko bi mu ñëwee ñu jaarale ko ci service yu compétent yi ñu xool ko ba visé ko ba validé ko ñu jël ko nag def ci Pastef ak yéene ndax ni ñu koy waxee Serigne Touba la ñuy liggéeyal Serigne bi ki koy liggéeyal dañ ciy def Pastef ak yéene loolu moo tax bi ñu ko liggéeyee ba mu sotti. ministre bi ba mu fa delloo daf ne modèle bi dañ ko war a jël ñun di ko doxee te fekk ci ñoom la bàyyi ko loolu la muy tekki mooy Pastef bu ci nekk ak yëg liggéeyal sëriñ bi biñ ci jógee ñu song bu boobadeel bu kër kërgal ba ñaar yooyu fi mu ne noppi na am ndigal ubbi ko moo ci des waaye noppi na biñ ci jógee ñu song bu daaru xadim gros bi noppi na lépp luy lu war a jëmm luy taxaw taxaw na ba noppi li ci des kon mooy finition bañ ca jógee ñu sangu bu Touba Njaarim teg nañ xeer wa plan yaa ngi génn ñu ngi lancé appel d'offre yi pour joxe marché biñ ci jógee ñu ñëw ci bii teg xeer wi te fas yéene di ñaan yàlla mu sotti li nga xam ne nag moom la ñiy joxe ñaar téeméer yooyu tax loolu mën a nekk bi ñu doog tàmbali Touba ca kanam lañ ci doon boole mooy sàkku ak saytu ak leeral ginnaaw laaj lu ñu mën la kon nañu fexe bañ koy def fu ñu xam loolu day mel ne am nañ ci tawféex alhamdulilah jiital ci sëriñ Abib muy jëwriñ ji nga xam ne kuy bëgg lu leer boo ñëwee ci moom fa nga yem bi ñu yàlla dimbalee ba étape boobu ñu xaw cee am dara duma wax ne liñ ci am doy na ci wàllu leeral xaw nañ cee am dara waaye am na leneen lu ci mbokki taalibe yi di boole te ku lay jox sab xaalis nga di ko saytul lam lay wax da ko war a dégg li ñuy wax mooy Touba ca kanam nañu góor góorgóorlu ndax li tax kat bi juddoo nit ñëpp songu ko dafa am yaakaar ju ñu am ci moom bokk na ci yaakaar jooju nag mooy fexe ba lépp lu mu tabax wala mu defar ko mu teg ci bëtam di ko saytu ba mu mën a sotti ba àgg ci la taxoon nit ñi def ci seenu xaalis loolu day tomb bu am solo bu mat a bàyyi xel ndax dañoo seetlu ne dëkki Afrique yi bokk na ci li leen sonal mën nañoo defar ay infrastructure wante saytu jafe-jafe la ci saytu ak suivi problème bu sérieux la ci loolu moo tax nag mbooleem mbokki taalibe yi di ko sàkku ci Touba ca kanam ci biir loolu ñoo ngi ci juróom-benneelu poste de santé buñ ci boolee bii ñu xalaat ne poste de santé yi buñ ko tabaxee ba noppi lépp lu jëm ci saytuma ak lijjanti ko faw ci loxob Touba kanam la war a nekk te loolu dafay mel ne bu ñu delluwaatee ci loi ak législation yi nga xam ne ñoo tënk wet googu nangu na ko monsieur le sous xam na bu baax li may wax ndax da koy faral di wax li ñuy wax partenariat public privé ñu koy wax PPP Touba kanam ma nekk naa wax ne privé la public bi mooy ñoom ñii suñu partenaire suñu diggante mooy ñu fexe ba lépp lu ñu liggéey ñu ànd koog Touba ca kanam yor suivi bi forme yi nag bari na war wax nañ ci ay forme yu bari ci comité de développement sanitaire sanitaire bi naka la war a taxawee waaye ci biir waxtaan yi ñuy waxtaan ak ñoom ñi ci am xam-xam xamal nañ ñu ne am na ci forme boo xam ne bu ma jumut conventionnel lañ koy wax forme boo xam ne diggante privé bi ak public bi ñoo koy séq bu ko defee saytu bi mën a ñoŋ li gën ci askan wu taxawal dara wu nekk nañu def ba taxawal ko noonee ñu def ko ba saytu ko te nit te Touba ca kanam mooy nit ñi nit ku nekk la mu def boo ko ko wëlbatee dénkaat ko ko day tax mu gën a ñoom gën a mucc ayib ba li ca bëggoon nga mën ko ca am kon loolu dama ne woon du ma sori ci kàddu yi te dugaluma ko ci euh, li ci des nag mooy Touba ca kanam ak lu mën a xew weer 1000 francs la lu bruit bi bari bari tegu xeer yi lu mu bari bari inauguration yi lu mu bari bari weer ñaar téeméer na Touba ca kanam mooy ñëpp Touba ca kanam mooy monsieur le maire Abdou Lahad tamit toog fii mooy docteur Dieng bi doon wax léegi ndax léeg-léeg sax bu ma déggee kenn ci ñoom di wax naan yéen Touba kanam damay bëgg muy wax nun Touba kanam ndax Touba ca kanam mooy ñëpp ginnaaw mooy ñëpp nag ak monsieur le préfet ginnaaw mooy ñëpp nag kon lépp ñëpp lépp ñëpp nag li ci war ñëpp moo ñu bokk ca saytu ba bokk ca la koy jëmale kanam bokk ca la cay jàpp te sant ñu bu baax soxna maam Xari Mbàkke ci yéeneem ak yëg-yëgam bu am solo bi nga xam ne def na ko ci jataay bii te mooy yëkkati ñaari million barkeeloo ko ci liggéey bi nga xam ne ñoo ngi koy door di sant ñëpp. bu baax a baax ko xamal ne rek ñu ngi ci comme li ñu waxoon diirat lii ñu ma dénk muy commune bi maa ngi ci maa ngi ci ànd ak ci liggéey bi ci wàll boobu. ba saa bu ko suñu borom jeexalee ñu continuer nekk taalibu sëñ Tuubaa ànd ak yéen ci liggéey bi ci ndigalal sëriñ bi di rafetlu bu baax a baax lii poste de santé bi nga xam ne fas nañ ko yéenee def di la waxal ne rek li li nga xam ne moom la ci commune bi jël en charge mooy l'ensemble de équipement matériel médicaux bi nga xam ne moom la poste bi sa soxla woo moom incha allahu rabbi commune bi jël na ko en charge disponible na it mi ngi fii ci commune bi tegu fi bu fekkee ne liggéey bi yàlla dogal na sumb nañ ko ci ni ngeen ko xalaatee benn nañu taxawal comité de santé bi comité bi nga xam ne moo koy yor mu mën a recevoir bagage yi mën a ànd ak liggéeykat yi ñuy sottiyante ay xalaat ànd liggéey bi dana gën a yombal ci buñ demee ba ca jeexital la maanaam ñu xam ne ñoom seen mission tàmbali na bi liggéey bi tàmbali ñu def suivi de travaux bi ànd ak ñoom waaye buñ demee recevoir bu leen neexee matériel bi moom disponible na suba suba mën nañ ci jot buñ taxawalee comité bi mën nañ leen ko rendre docteur Dieng mi moo ñu développé expression de béton bi saa bu ñuy wut matériel médicaux moom la ñuy wax mu bindal ñu li nga xam ne moom la poste war a am mu jox ñu ko ci noonu lañ koy commandé jox ko ko en général su noppi bu fekkee ne li commune bi tabax bu noppi waa moom lañ koy jébbal mu installé ko. ci poste bi ak docteur yi commune bu fekkee ne foo xam ne commune bi ak sous-préfet ñooy tànn comité bi ñu tànn ko door koo teg ci seeni loxo. am mbégte ñëw fii teew si pose première pierre bi nga xamante ne bii maam Mor Mbacke moo ko teg si loxo fii si ndaam ndaam nag wax na si moom si wàllu boppam lu bari. daara la day sëñ suñu maam jooju Abdourahman Lo moom moo doon naafila kaamil donc wax dëgg yàlla tey jii mbooloo dëkk fii si Ndaam ndaxte daara la yaakaar naa ni kon bu ñuy tabax Tuuba ah war na see am ci moo tax ñu am mbégte ni ndaam dafa am importance ci Touba parce que man bu ma fi ñëwee ba visiter béréb yi laa soog a xam ni fii béréb bu ñu war di ziar la béréb bu am histoire la kon ñu ñu war a jàppale lañu parce que ay taalibe murit ñoo fi nekk te di dox doxin bi nga xam ne bi bu bu ci ayib doo leen dégg si dara nag ñu ngi toog ak bu seen tumrankeeg yëpp mais demuñu si kenn maanaam ñu ngi dox doxin bi nga xamante ni bi rek moom la sangu ju tedd ba seen maam Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul waxoon rek nit dafay xam boppam balaa ngay gëm sa bopp xam sa bopp sax moo gën jafe xam yàlla xam sa bopp moo gën jafe xam yàlla te Touba loolu mu leen digoon moo di lépp li ngeen soxla rek tàmbali leen yéen seen bopp ku am ñaar fukki dërëm teg keneen ku am juróomi dërëm teg ku am fukki dërëm teg rek mu sotti Touba si kanam si principe boobu rek lay doxe boo ko xoolee te gis nga euh, mbooloo mooy joxe doole macha allah taalibe murit lu ñuy soxla war nañ ko mën a am loolu leen sëñ Touba doon jàng jamono ngi ñëw si kanam li ngeen soxla munu leen si xaar kenn loolu mooy xam sa bopp ba pare gëm sa bopp sëñ Maamoor wax na ko fii tuuti am na lu mu si junj xaalisu taalibe murid yi seen ñaar téeméer yooyu moom lañuy taataan dem investir ko waaye nag si biir investissement boobu ak taataan boobu am na lu mu si wax moom mooy seen devise bi laaj lu ñu mën def lu ñu xam ak def lu ñu mën parce que ku laaj loo mën mais booy def da ngay def loo mën tamit ak def loo xam ak fu ko nit yi xamee lu ëpp lu si gën a am importance si li ngeen di def nii mooy yéen a ngi inscrire seen action si bonne gouvernance xam nga président bonne gouvernance mooy lii bu ñu defee ba pare ñu ñëw ñu toog ñu ne leen fii lañ ko def am na association yi bari si biir Sénégal tas nañu ndaxte bu ñu dajalee ba pare ah, benn séeréer mooy ñëw rek jël ko association ba tàbbi géej am na yeneen association ci biir Sénégal luy nit yi di wax lu sotti rek waaw <laughs> bu demoon ba sotti ñeneen ñoo ñëw ñu ne waaw Serigne Habib day dégg baax na dégg bàyyi mu <laughs> ñëw dañuy renouveler. nañu ñëw ñu renouveler bureau bi parce que dañu bëgg a dàq parce que am na lu fa nekk te bu ñu bu reneen fa tegee rek fa lay association bi di jaar tabigé moo tax ma ne Touba association bi Touba ca kanam c'est association de référence parce que dëkk bi leader la dans le Sénégal lépp lu ñu fi taxawal si kuréel kuréel boobu dafa war a nekk leader reyukaay ñu koy publier. yeneen association yi nekk ci Sénégal gis ko ñu roy si yéen ndaxte dëkk si dëkk bi tekki fi dara ko gën ñu bare am nañu yéene tabax bokk ci luy tabax Touba mais xoolal ñaar téeméer nga joxe ko at bu jot lu ñu tabax ci Touba rek mën nga yëkkati nga ne man dugal naa sama koppar wallaay wallaay ku li mën nga yëkkati sa loxo ba mu mët compensé maanaam un milliard la te day ko day da koy raw yi ji te loolu yëpp bu ñu ko jëlee dañ koy andiwaat si dëkk bi dëgg la poste de santé état moo ko war a tabax poste de santé lu wàllu santé c'est une compétence transférée mairie yi ñoo ko la ko état jox waaye état daf leen siy jàppale tamit waaye lu lu lu Sénégal soxla surtout poste de santé yëpp c'est état munu ko tabax waxtaan wax dëgg si la même bu ko naree tabax tamit dina yàgg mairie tamit ñëpp xam nañu ne kopparam <laughs> du du ko génne noonu comme kopparu Touba kanam moo taxoon ne keroog ma ne leen commune bu nekk man commune ba ma nekk ba bëgg naa am association bu mel ni yéen parce que mairie bu am association bu bu mel ni yéen rek taw féex la parce que dafa am procédure marché boo naree investir dara da ngay def marché bi yónni ko DCMP mu xool ko saytu. temps boobu léeg sax ñu annulé si benn erreur bu ndaw mais Touba si kanam ñoom bu ñu toogee waxtaan ñu ne lii war nañ ko def ànd nañ si ñoo gars yi ñëw la ñuy def ko te gis naa fu ñuy def foofu tamit foofu lañ ko war a def ba si kii périphérique yi nga xam ne bi balaa ñuy yegg si ñoom parce que mairie bi mairie Touba lu mu am si ay charge diis na lool yéen rek lu war a jàppale te yéen a koy jàppale tamit maire xam na loolu man xam naa loolu te maa ngi koy rafetlu nu baax a baax a baax